Euh, de gouvernement et de la Seydou Nourou Tall taxaw seetlu bi bokk na ci li ñuy fàttaliku mooy li xewoon bis ni tey ñetti fan ci weeru mai atum 1961 ak itam amaana yeneen at yu ko jiitu wala yu ci topp lu ci mën a am yaay Kumba Njaay noppi na ngir baaxee leen bépp xibaar bu aju ci mbir moom mi ñetti fan ci weeru mai atum 2013 waa mouvement des forces démocratiques de la Casamance dañoo sàccoon lu toll ci fukk ak ñaari doomi réew mi ñetti soxna ak juróom góor njiitu MFDC jamono jooju nag mi ngi doon wuyoo si turu César Atoute Badiate moom nag ak i ñoñam ñi ngi mujjee sax libéré otage yooyu le 13 juillet atum 2013 ca booru Kasolol ca wetu frontière diggante Sénégal ak Guinée-Bissau ñetti fan ci weeru mai atum 2018 ci li ko yoon doon toppee ngir terrorisme imam Aliou ndaw nag bi ñu ko dégloo ca tribunal bu ndakaaru moom nag dafa weddi tuuma boobu ñu ko jiiñoon jëmale ko ci jihadisme violent ñetti fan ci weeru mai atum 2018 réew yi di Botswana Nigéria Sénégal ak Tunisie ñoo nekkoon ay candidat ngir bëgg a amal jeux olympique bi ñu jagleel ndaw yi JOJ 2022 bi nga xamante ni si comité international olympique daal daf ko bëgg jox benn réewu Afrique ngir mu dalal ko bu boobaa nag euh, tunisien yi war nañu mën a nangu dalal athlètes yay jóge réewu Israël su dee bëgg nañu des ci jogante bi ñetti fan ci weeru mai atum 2023 ci la ñu fësaloon classement mondial bi ñu jagleel liberté de presse Sénégal nag atum 2023 mi ngi jël 104e place te sooy seet atum 2022 ñu ngi woon ba 73e place. ñetti fan ci weeru mai atum 2006 terroriste bu mag boobu di wuyoo si turu Zakaria Moussaoui moom nag dañu ko tëj kaso ci giiru dundam teg si nag duñu ko sax may fu mu mënee wàññi daan googu li ko waral nag mooy loxoom génnul woon ci attentat bu 11 septembre atum 2001. ñu taxaw ci ñetti fan ci weeru mai atum 1961 moo newoon cérémonie bi nu doon def pose premier pierre maanaam tàmbali liggéeyu tabax grande mosquée bu ndakaaru ci teewaayu Mamadou Dia président du conseil de gouvernement ak El Hadj Seydou Nourou ñu dellu si ci histoire grande mosquée bu ndakaaru lu tax ñu tànn gox boobu nga xamante ni si ay bàmmeel la woon tamit lu tax ñu woo ci réewu Maroc. li nga xam ne nag le roi du Maroc def na ko mooy moo ko engagé woon euh, ci alal joo xam ne mu ngi jóge ci cangu yaayam di bàyyam di takk yaayam càng bu mu ko joxoon alal jooju moom boo nekkee buur yaa koy doon dañ koy denc sa taaw mooy nekk roi yàlla dem mu juddu nekk góor moom moo jël xaalis boobu ci alalam ci ay revenu personnel boole ko ci defar grande mosquée de Dakar ci architecture bi nga xam ne moo fi nekk ba tey pour ci gërëm di ko sant waaye bi Maroc nag dafa bokk ak Sénégal ci lu bari xam nga surtout c'est une communauté boo xam ne la Tijaniya fa la am référence ñu bokk nag aussi des attributions yu bari surtout nga xam ne ay jullit lañu comme ñun ñoo bokk di wasifa ni ñuy wasifee Maroc lañu koy defee Dakar ni ñuy xadara yi ñuy def tamit ñoo ko bokk ni ñu koy jàngee ak ni ñu koy waxee donc ñu bari boole ñu ba ci commerce bi ba ci mbokku gi ba ci àndandoo bi ba ci xarit yi diggante Senghor ak le roi du Maroc son excellence rahimullah Hassan II leneen yi nga xam ne moo ci nekkoon mooy fi ñu ko def moo doon cimetière bu bu njëkk bi nga xamee ne nag yàlla dogal nañu war a toxal cimetière yi fële ca les abattoirs fii moo nekkoon pàkk boo xam ne mënoon na ko abrité ndax jumaa ju mag ji mu nga nekkoon ci rue Blanchot fa mu nekk ba tey léegi li ñu waree def nag li ñu wax grande mosquée ñu def ko fii mu tudd grande mosquée ndax moo fi gënoon rëy ci Afrique ci jamono yooyu gën fi yaatu gën fi rafet ñu ngi ko inauguré le 27 mars 1964. par le roi du Maroc Hassan II moo ñëw ci boppam ci invitation Senghor inauguré see jumaa ji keroog nag amul Lamine Diène alaaji ma Lamine Diène moo def xutba bi euh, sëriñ Abdou Aziz Dabakh moo jiite jumaa ji keroog mooy bés bi ci jëkk juddu dugg di ci julli le 27 mars boobu lay doon 1964 ci lañ ko inauguré léegi nag li nga xam ne tamit nekk na ci ay secret mooy sëgu lébu yi la woon te lébu yi dañu fonk ay armeel dañu fonk ay néew ndax dee du gàcc ci ñoom mettit la tiis la mais génn àddina taxul ñu bàyyi la ñu ne nag suñu cimetière yi nañ ko jël def ci suñu jumaa tabax ko ci comme ni nga gisee ne cathédrale tamit noonu la nekk woon cimetière yu jëkk yi avant ñuy dem Bel-Air ay cimetière la woon grande mosquée bii moo doon cimetière musulman donc loolu lu nekk la. waaw def taxaw seetlu bi ci ni ma ko waxee euh, grande mosquée bërëb bi itam c'était pas euh, du hasard. donc mm-hmm. lépp lu ñu def rek am na lu nekk ci ginnaaw. waaw euh, El Hadj Amadou Lamine Diène moom moo doon imam ratib de Dakar moo doon diriger prière bi fële ca Blanchot foofu nag la. Euh, la ñu jàppoon ni mooy euh, dakaar waaye foofu lañ doon jullee mais ñu am projet dison taxawal grande mosquée de Dakar. Mhm. ñu ni dañuy former benn comité moom moo nekkoon ci communauté comité bi ay diriger ko ak euh, ay ay notable lébu. Mhm. ak ay personnalité yu bëri yoo xam ni mhm, ràññee leen leen di boo seetee nag dañu amoon problème ndax problème bi ñu amoon mooy emplacement fi ñu koy fi ñuy fi ñuy samp mosquée boobu. Euh, mosquée bi ñu ngi xalaatoon ni dañ koy def fii actuel Masalikul Jinaan nekk. ñu ni nañ ko yóbbu ci cimetière yi parce que cimetière yi il faut ñu rappeler que ni. ah euh, 1911 ba 19 1912 mooy fii euh, mosquée bi nekk actuellement nga xam ni allée Papa Gueye yi foofu la cimetière u Ndakaaru nekkoon mais dañ ko tëj dañ ko tëj en 1911 ba 19 fin 19 début 1912 Euh, pour permettre ñu taxawal fa projet euh, disons samp la mosquée la grande mosquée de Dakar mm-hmm. mais grande mosquée de Dakar boobu dafa amoon benn association boo xam ni El Hadji Amadou Lamine Diène bi bi ma lay wax moom moo ko jiite woon mm-hmm. am ci également mu amoon une participation boo xam ni état du Sénégal da ko ci dafoon état du Sénégal par exemple da ci dugaloon xaalis bu toll ci deux cent vingt millions mais da ko versé en quatre tranches. Mhm. kii di ville de Dakar également dugal ci cent douze millions. Mhm. Euh, la communauté libano-syrienne. Mhm. dugal ci trente neuf millions les lébu ak les dignitaires famille yeeg yooyu ñoom ñu dugal ci cinq millions. ci lan commencé euh, def projet bi mais ba ñu defee projet bi présenté plan bi ak maquette bi mm. euh, waa lebu yi ñoom lebu yi dañ ni ñoom d'accorduñ ci mm. maquette bi niñ ko defee ci lañ euh, dàqaat projet bi ñu ni comité bi dañ koy léegi soppi daf ko association bañ ko defee association mu tombeek nag entre temps mm-hmm. ñu war a déguerpir waa Médina président Mamadou ja Euh, ci li euh, nu mu tuddati Abdoulaye Makhtar Diop bind ci benn contribution. Mhm. amoon ay problème ak waa Médina parce que dañ leen waroon déguerpir. Mhm. ci la nag Senghor duggee ci projet bi daal di proposer kii di ministre am foofa Fofana mu seet avec la coopération marocaine nan la mën a ñëwee dugal seen loxo ci projet. Mhm. loolu moo ci dugal waa Maroc yi. ba Assane 2 ba mu d'accordé dafa jël can bi nga xam ni moom la papaam takkee woon yaayam pour mu dugal ko ci mosquée bi muy loo xam ni muy geste bu rëy ci la communauté lébu ñoom it ñu sedde seen hectare boobu nekk ale Papa Gueye Fall ñu mën fa samp euh, mosquée bi yaa ngi koy dégg léegi ci élage Hadj Oumar mu ni euh, El Hadj Abdoul Aziz Sy Dabakh moom moo jiite première euh, julli bi nu julli ci grande mosquée bi hmm. kii di El également jën euh, mm-hmm. El Hadj Amadou Lamine Diène daal di def xutba bi mu nekk benn histoire boo xam ni également mm-hmm. ni mu nekkee ci euh, mosquée Ndakaaru noonu la nekkee ci cathédrale cathédrale aussi ay ancienne euh, ay cimetière la woon balaa ñuy doxal cimetière yi yóbbu ko fële ceeb belee très bien merci beaucoup Mokhtar la ci tënk bi ñu wax léegi léegi moo def na tënk 4 minutes de léegi waa loo bëgg a def. dañ ci bëgg a tradition la ci président yi ñu fay jullee julli yi. xëy na à part l' épisode de Ablaye Wade bi nga mm. xamante doon jullee Massalikul Jinaan. Mm. chef d' état yi wax na même cinq war nga xamante du woon jullit mais des fois doon na ñëw quand moo tax affaire loo boobu amoon amoon fa. jërëjëf bu julli di di kii di julli mu taxaw. seet la. jërëjëf c' est une bonne tradition. Euh, jërëjëf merci beaucoup. bàyyi vice président moom moo ne ma <laughs> moo ne ma joxal moor mu joxal moor eh, rappel historique jërëjëf waaw important tout est important dëgg la tout est <laughs> important et vous avez parfaitement raison <laughs> non leen comme nee nañ tout est important Cheikh Tidiane léegi kon nañ bàyyi jaratul ñuy gérer temps du dëgg tënk la ñaan ma waaw su ma leen tënk la ñu jël def cinq minutes pour magistral yow ñëw fii di nelaw dëgg la loolu yëpp dëgg la eh, mag ba mu ñëw fii day wax l'histoire <laughs> ñuy fàttali c'est <laughs> ba tey le contraire dama ni merci Mortala pour les quatre à cinq minutes de tënk moo bien fait de rappeler l'histoire ndax man mii xaw moon ni foofu ay ay sëgg fa waaw ba ji ba nga ñu dem léegi léegi ci xibaar yi ci gàttal ànd ci ak Cheikh Tidiane Diawo